bismillahi rahmaani rahim ba tey ñu ngi ci garabu Tuuba ñu ngi toll ci xaajub juróom ñaareel bi ba seeni tàmbali nag kon ci juróom ñaar fukk bi sëriñ bi xaada lahoo laaw maxtaar lahoo bi mu bindee wa aleykum asalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhoo lii la wax yal na leen yàlla fay aw yiw fegal leen lor maa ngi leen di diggal ngeen di yeesal seenu gëm ci jàng alxuraan te yeesal seen lislaam ci naafila yi te yeesal seen ihsaan ci bàyyi lépp loo xam ni amul njariñ saa su ngeen yégee ak wow ci seeni xol tuub leen dellu ci yàlla subhanahu wa kon dana leen jéggal dana leen yërëm am na loo xam ni maa ko waxoon ci tàmbuli koor gi di ci wax ak ñépp dama ni nekk leen ay jullit te topp ndigal yi ngir jëm yàlla subhanahu wa taala faaw kon da am la gën a rafet bu leen jëm ci loo xam ni amul njariñ day leen taqoo sunna si bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa ndax mooy wommate day leen ci wommatu te ci wommat nit ñi jëme leen ci yàlla subhanahu wa mi saxal xéewali loolu mi ci xatu fukk juróom ñaar ñett ci diwaanu ilhaamul wadud wallahu alam ci xatu fukk ak juróom ñett la nekk sëriñ bi xaadalawoo law maxtaarlawoo bi mu musloo ci saytaane ni mu ko baaxoo andi julli na ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi julli gu ànd ak aw tagg daa ñaan sunu boroom mu gindi ci baydi yi muy bëgg a def akub saraxoom képp ku hittewoo yoon wu jub daa wax lii maa ngi sant sama boroom tey julli ci yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam sant naa yàlla ci def gi mu def yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wasabi wa sallama muy sama wasiila te loolu mooy ngën gi fajuk haajo kaweg yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wasabi wa sallama leer na ma kuy sàkku ku mel ni yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wasabi wa sallama ci mindeef yi du gis ko mel ni moom ci bind ak jikko diine yonante bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama moo folli diine yépp te jenn diine du ko folli faw sunu borom moo yëkkati yonante bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi jiital ko amul morom te mooy rammu ëllëg yow murit bi da nga may laaj loo xam ni dana la jariñ ma wëlbati sama jëmm jëmee ko ci yàlla subhanahu wa ngir tontu la duglu li ma lay wax te nangu ko ndax dalay ñoddi jëme la ci ay ngëneel del dox jëm ci yàlla subhanahu wa te ànd ak gëm gu wóor loolu mooy yoonu kóolute na nga taxoo lislaam ndax ku am lislaam deesu ko yedd na nga taxoo kon danga am ngërëmul yàlla subhanahu wa taala te dana la may yu rafet ñooy koom yi xam sa boroom ci pas-pas bu sell ci bépp lant moo lay fegal mettit bul bokkale yàlla ak kenn ndax nee kenn la boo dee jaamu yàlla subhanahu wa taala ci fiqu tey rafetal dana la fegal tiiti adduna ak alaxira ak mbooleem ñaawteef yi ak nax yi del topp yàlla subhanahu wa taala ci ñett yi kon dana la teral yoonu àjjana mooy liimaan lislaam ihsaan yow murit bi lii ma lay wax man ma lay laay biir ko jàpp bu baax ndax ci ay ngëneel laale jëmale maa ngi lay dénk ay teggin te mooy ngay topp yàlla subhanahu wa taala ci lii nekk ci téere yi del yërëm gone tey wang weng mag bu amee alal ak bu amul alal koo tollool def ko ni sa bopp di ko defal li ngay defal sa bopp ku dul yàlla nag mënta jariñ mënta lor mënta yëkkati kenn del sakku njariñ ci yàlla sa boroom del sàkku jàmm ci moom aku yëkkatiku del sàkku ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi ak texe ak mbooleem yiw woo bëgg ci yàlla subhanahu wa taala del tawasul ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wala ci ay wàliyu boo dee tawasul ci yàlla subhanahu wa taala wala ci yonante yi wala yonante baneen boo bokkee ci xeet yu njëkk ya ku bëgg a àgg ci yàlla subhanahu wa taala war naa am ku muy àndal ci yoon wi ndax képp koo xam ni sunu boroom xëccalu la boppam amoo itam ab sëriñ bu mat bu lay fegal lu dul noona seytaane moo lay yóbbu sawara te kenn du la tinu man ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama laa tawasuloo jëm ci saa boroom am na yu mat fanweer ak ñett yu ma bàyyi jaay ko yàlla subhanahu wa taala te duma jaayaat leneen hadiyee sunu boroom dëgmal na ma maa ngi julliwaat ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil xisati ama yasifun wasalaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ngi ci xatu ñaar fukk ak ñaar ci diwaanu ilhamul wadud wallahu aalam sëriñ bi xaada la wallahu maxtaar la woon nee na ahmadu mbakke mu doyadi mi tey liggéeyal ku dëgër ka muhammad sallallahu taala ali bi alihi wa sahbi wa sallama nee na dee leen fexe jëmale xol yi ci yàlla subhanahu wa taala ci sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tay sorek bi day yen ñi gëm yàlla subhanahu wa taala de leen farlu ci top yàlla subhanahu wa taala te lépp lu dul yàlla bu leen ci jëm sax leen ci alquran ak hadith yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ak hadith yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ak fiq te ci dëppale seeni wax ak seeni jëf képp ku jub bu wér deesu ko yàdd ku yàlla jëmale ci liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbi wa ragal ndax yonante bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama bokkut ak yonante yi alayhimu ni nga xamee ni ñoom noonu lañu kawee gone yi yéen yahood yi ak nasraan yi topp leen yonante bi sallallahu taala te koy dimbale képp kuy sàkkoo la nga bëgg ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi xol say day sedd sab xol day sedd sa bakkan teey képp kuy roy yonante bi sallallahu alayhi wa kuy roy iblis sooy na ñii góorgóorlu ci sunna si yonante sallallahu taala alayhi wa alihi wa nañu xéewal yu rëy fa yàlla subhanahu wa taala képp kuy bàyyi sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallama dana ami mbugal ak i fitna aku xañ gaaw leen te xelu tey topp ndax am na nit ñoo xam ni dañoo bëgg a fay leeru yàlla subhanahu wa taala ci seeni gimiñ billahi te sunu borom faaw mu matal ak leeram doonte yéeféeri dañuy bañ am nañu réer ñoo xam ni seen hitte mooy suufeel yonente bi sallallahu alayhi wa bëgguñu ni ko yàlla def ab làmp sax ñooñu mën nañoo dee ngir mer ak tiis ndax ku iñaan du teqali koo ki tiis waaye loolu bu ñu ci saxee te mooy naafiq ak wedd ak bew itam du wàññi wala muy lor yàlla subhanahu wa taala bu ëllëgee su ko defee yéen jullit yu jub yi bu leen réer bu bàyyi yoonu yàlla subhanahu wa taala dee leen daw jëm ci yàlla subhanahu wa taala tey topp sunna yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi topp leen diine tey moytu ñu réer ñi nelu yoonu yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi feeñ na lool ndax ak leeram daa kawe leeri kudul moom ah du tee muy yaatu bu fekkee daa am bërëb bu yaatu lool aw xorandoom bañ caa aw du tee muy yaatu ñooñee daan gàddaay ànd ak yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbi wa sallama ak lansar ya mësuñoo jaamul yahood ya mësuñoo jaamu nasraan ya seen hitte mooy def ñu baax ñii seeni jaam te loolu du am mukk seen hitte mooy def ñu baax ñii seeni jaam te loolu du am mukk bañ gu ñu bañ yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi na ñu bëgg a teg sunnaam si ci seen ginnaaw lu yàlla subhanahu wa dogal kan moo ko mën a delloo kenn képp kuy dem ci nasaraan yi ngir alal walla ak am am métier kuy dem ci nasaraan yi ngir alal wala am métier wala daraja wala ngay dem ci yahood yi wala majjoos yi ci lu dul lor nar nga am mbugal ndax dañu yàq diine sunu boroom lépp lu mu àtte kenn mënu koo jeñ lépp lu mu jeñ itam kenn mënu koo indi mooy yokku wërsëgu ku ko neex di ko wàññi ku njott ni am na kaneen kuy lor wala muy jariñ ku dul yàlla subhanahu wa nar na ami lor ci adduna ak àllaaxira ak i coona képp kuy jël mbir di ko joyal ci ku dul yàlla sonn na ku joyal mbir jëme ko ci am nasraan pett na képp ku yàlla subhanahu wa taala may ak gëm am nga kóolute del sant yàlla subhanahu wa taala joyal mbir yi jëme ko ci yàlla subhanahu wa taala mucc ci ñaw teef yi ak seytaane man saa boroom laa jublu tey joyal samay mbir ci moom tey wommatu tey topp ay ndigalam gërëm naa ko bu wér mu doon saa boroom lislaam itam gërëm mu doon sama njub yonante bi it sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama defal na ma ko moom saa boroom muy sama wasila fu ma toll maa ngi sàkku ndimbalem tey sant yéefar yi dañoo bëgg a fay leerug yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa dañuy fexe moom réew yépp ngir dafa yàq di fa bew danañu xam ni sunu boroom màgg lool yàlla subhanahu wa taala mi bind suuf ak asamaan moo gën a yey ci ak jaamu nun ñëpp moom lañu waroon di jublute koy jaamu day dund te faatu xanaa ñi gisuñu sunu boroom moo leen amal ba ñu amul bu ñu xamoon xisaab danañu bàyyi seeni mbokk yépp ngir jaamu yàlla subhanahu wa waaye dañoo mel ni ay bàyyi ma wala ñu gën a réer sax ngir nanguwul ci ñoom ak njub kenn nanguwul ci ñoom ak njub moo tax ñu torax réer mbooleem ñi weddi te tuubu baatu danañu am ay njàqare saa suñu duggee sawara ci ay njàqare lañuy sax faawu sunu borom yal na nga ma musal ci sawara maag sama way waajur ak julli yépp yal na nga wëlbati sawara ci nun te julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi salama danañ ci mucc julli goo xam ni danañ ci làqe ak mucc adduna ak alaxira ci sam pexe ak sawaraw adduna ak ëllëg subhana rabbika rabbil xisati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi xaada lahoo law maxtaar ahmadu mii jaamu bi yàlla subhanahu wa taala tey liggéeye yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbi mooy wax ngir jaamu yàlla subhanahu wa maa ngi sant yàlla subhanahu wa ci xam gi ma ko xam ci ay turam ak i meloom julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi moom mi nu andil gën gaa rafeti wax ginnaaw loolu yi way la woo xam ni day soril gone yi ak mañ lépp luy yeddaanga akuk torox assanoo si mu mag ma teyu radiallahu taala anhu moo ko wesaroon maa ngi ñaan sunu boroom mu gërëm ko ak mbooleem waliyu yu mat yi te may ma li ma bëgg su ko defee noo ngi jëm ci way wi tey ñaan sunu boroom mu may nu ak texe ci lu nu bëgg ànd ak xam-xam xamal ni sunu boroom taala ko am la te ak amam lu war la kon dee ko jaamu tey rukkoo tey sujjóot amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam te loolu lu war ci moom del sàkku ngërëmam ci ak ragal naka noonu war na ci moom wuuteeg mbindeef yépp ak taxaw ci boppam de ko jaamu kon dana la may kiimaan sunu boroom moomu kenn la ci jëmmam kenn la ci ay meloom kenn la ci ay jëfam dee ko te koy jaamu sunu boroom moomu am na kàttan akuk nammeel moo tax lu mu bëgg a amal amal ko te dara mënuta am te neexu ko xam na lépp te day di dégg di gis di wax waaye yooyu yëpp nuróowulu koog mindeef ay waxam amul xaraf amul kàddu du jóge ci ab dënn safaanu melo yi malim na ci moom ba tey sunu boroom nekkul ku ñuy wax te amul wala mu doon ku am fu mu tàmbalee wala fu mu yem wala ku muy nuru wala lu muy nuru wala muy jëmm juy aajawoo ko ko sos wala muy aw melo wuy nekk ci biir gémmu wala muy nekk ñaar wala lu ko ëpp wala muy tële wala dara di am te du ko soob wala muy réere dara wala muy dee wala muy tax tax mooy kudul dégg wala muy gumba wala muy lu lu mooy kudul wax sunu boroom li dagan ci moom mooy def ak bàyyi li ñuy tegtaloo ci amug yàlla subhanahu wa taala mooy mbindeef mu bind li nuy tegtal ni amul fu mu tàmbale moo di bu ko amoon day am ku ko bind te moom moo bind ñëpp li nuy tegtal amul fu mu yam moo di ñàkk am fu mu tàmbalee ndax bu doon am fu mu yam dana am fu mu tàmbale te amul fu mu tàmbale li nuy tegtal ni yemoowut ak mindeef yi moo di bu yemoowoon ak ñoom nekk mindeef te amul menn mindeef moo xam ni amul fu mu tàmbale amul fu mu yam li nuy tegtal ni nekkul jëmm moo di bu nekkoon jëmm day aaje woo ko ko sos li nuy tegtal ni nekkul aw melo moo di bu nekkoon aw melo day aaje woo jëmm ju muy dugg li nuy tegtal ni kenn la moo di bu nekkutoon kenn du mën a sottal dara te mooy moonut ñëpp te moom moonoon ñëpp te bind ñëpp te loolu feeñ na lool li ñuy tegtal ni am na kàttan akuk nammeel ak xam-xam akuk dund bu leen amutoon dara du am ci mbindeef yi te mbindeef yi am nañu li ñuy tegtal ni mi ngi dégg di gis di wax moo di bu déggutoon gisutoon waxutoon day manqué te ak manqué jomm na ci sunu borom li ñuy tegtal ni def ak bàyyi daa dagan ci moom moo bu jomboon ci moom wala mu war xel dana wëlbati dëgg-dëgg yi def loon lu jomb te loolu jomb na li war yonente yi sallallahu taala alayhim bi alihim wa sahbihim ñetti melo la dëggal ak kóolute ak jotal li jomb ci ñoom mooy fen ak wor ak nëbbu lañu leen yónni li dagan ci ñoom mooy bépp gaar gaar boo xam ni du wàññi seen daraja ci nit ñi mel ni jaay ak jënd ak lekk naan ak denc soxna ak fase soxna ndax ku ci nekk ci ñoom bànneexam day dëppook ak dëgg li ñuy tegtal ni lu ñu wax dëgg la mooy kiimaan yi feeñ ci ñoom mel ni luy wax ni li ñuy wax lépp dëgg la na ngeen leen gëm te dëggal leen li ñuy tegtal ni dañuy am kóolute mooy bu ñu amutoon kóolute dañuy war te mbooleem workat yi sawara lañuy dem li ñuy tegtal ni dañuy jotal te duñu nëbbu dëgg mooy bu ñu ñàkkoon a jotal dañuy nëbbu ak dëgg te kuy nëbbu ak dëgg ndax kuy nëbbu ak dëgg mooy kuy am mujj gu ñaaw yal na nu yàlla subhanahu wa taala musal ci sawara ak i ak mujj gu ñaaw ak pet ak gàcc ak ak ëllëg ak lépp lu dul texek adduna ak alaxira li nuy tegtal ni gaar gaar yi dagan ci ñoom mooy ñooñee nekkoon ñoom ñoo ko gis nettali ko ñeneen ñoo ne ñooñee nettali ko ba mu agsi ci ñun maam dawal ba la wax dawal ba mooy mag ñu baax ña ñooy jox ñu leen wuutu ak topp ci ndigalul sunu boroom ba léegi sunu boroom nag defal nañu tawféex ci moom la nu tàmbule woon ci moom la nu matale maa ngi ñaan mu dolli yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tedd nga akuk moom mi mu def muy xamle subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifoon wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mi ci ilhaamul wadud ba tey ci xatu juróom ñaar fukk ak ñeent wallahu a'lam sëriñ bi xaada lahoo allahu maxtaara lahoo bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñaan sunu boroom mu nangul ko lii la wax maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ak xam-xam ak jëfe kon dangeen ngeen gën a yéeg bu leen yàq derub kenn kon dangeen mucc ci tawat yi ak tilim yi dee leen tuumaal seeni bakkan tey rafet njot ci seen boroom dee leen xeeb àdduna ak it rafet ak i rafet ci lépp luy maye ak texe ak xam yàlla subhaanahu wa taala dee leen yëkkati seeni hitte tey sàkku ngërëmul yàlla loolee nit ñu baax ñu amoon maa ngi ñaan saa boroom mu defal leen tawféex ci yiw yi ci mboolem seeni jëf ci wormay yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbihi wa na leen dimbale nimbal lu matale yal na leen dëgëral yal na leen jubale yal na leen wattu wattu gu matale yal leen sàmm ci biir karaangem aku jagleem lii maa leen ko dénk muy lu barkeel tey lu waral tey luy waral ak texe ci yéen ngir xaqi ki ma leen jëmale bi ngeen wuyoo ab wooteem na ko yàlla gërëm ngërëm lu sax li fekk ku ñu baax ñi mi ngi am dara yal na sunu boroom dolli tedd nga ak wóolu yonante bi aki i aki ak i saxaabaam subhaana rabbika rabbil xisati amaa yasifuun wa alamin sëñ Alaaji Mbàkke nag moo ci sarxul yi mu ni loolu muy wax ngir xaqi ki ma ba wax jeex noo ngi sàkku képp kunu ëpp ak xamu nga leeralnu loo ci xam lu nu ci xamaat des na ko bindaat leeral ko insha allahu taala wallahu aalam min ci xatu fanweer ak benn waaw lay laaj man de li ci saa dégg ngir xaqi jëm xañ na ñaan gee ñaan ba noppi la ñaan sunu borom def ko ci ngir ngir jëmmi yonante sallallahu alayhi wa bi nga xamee ni bu mu wootee ñi ko wuyu si maanaam moo yonante bi rek la leen ñaat jëme leen ci ndax bu ñu xoolee wax ji yëpp topp leen sunna si yonante bi rek la wax kon yonante boobu bi mu wootee sëñ bi ñu ñu ñu ko wuyu si yonante bi la leen joxañ kon ci daraje yonante boobu maa ngi ñaan sunu boroom defal ma lii man loolu moo ci saw ma déggin bi xaada lahoo laaw maxtaar lahoo bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi yow murid bi jàppal la biir goo xam ni dana jariñ képp ku soobu yoonu yàlla subhanahu wa taala del muñ tey ami teggin boo bëggee xam yu nëbbu yi del neewal waxi neen boo jubloo ngërëmul yàlla subhanahu wa taala del toroxlu tey tuutal sa bopp del jihaatanteeg sa bakkan ci nelaw yu bari yal na la yàlla sàmm fegal la lépp luy lor del nëbbu say lor tey téye saw làmmiñ tey rafet njott ci nun lépp loo gis ci nun dee ko muñ doonte da ngaa jàpp ni am na lor ndax li nu bëggal sunu bopp lanu la bëggal yal na la yàlla gindi lii ma la wax boo ko wattoo danga nga jub boo ko wattuwul boo ko wattuwul del xaal xalkande loolu mi ci xatu fanweer ak benn ci diwaanu ilhaamul wadud wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo laahu maxtaar lahoo nee na gaawtu yépp ci seytaane lay jóge ba mu des juróom yoo xam ni gaawi leen ci yàlla subhaanahu wa taala lay bàyyi ko gaaw a maye jigéen ju toll ci dem kër koo xam ni nawlante naag moom gaaw a fay bor gaawa waajal ab néew gaaw a berndeel gan gaaw a tuub boo defee bàkkaar lii ci yonante bi la jóge sallallahu taala alay bi alihi wa sahbihi wa sallam loolu mi ngi ci xatu fanweer ak ñaar ci diwaanu ilhamul wadud wallahu alam sëriñ bi xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na dee leen def toroxlu muy seenuk tedd dee leen def ñàkk muy seenum koom dee leen def xiif muy seenu ñam kon da yegg ci yàlla subhanahu wa mi ngi ci xatu fanweer ak ñaar ci diwaan boobu ba mu ilhaamul waddut sëriñ bi xaada lawoo laaw maxtaar nee na ay caaxaan mënta ànd ak yéeg te day fay leeru xol nee nañu leeru xol mi ngi mel ni ab niitukaay waxi caaxaan mi ngi mel ni ngelaw yi <laughs> xatu fanweer ak ñaar ci diwaanu ilhaamul waddut sëriñ bi xaada lawoo nee na maa ngi leen di dénk ngeen di muñ tey sàkku xam-xam tey nangoo ñàkk tey xiif tey bañ a màgg màggulu nango ñàkk tey xiif tey bañ a màgg màggulu dee loon toroxlu tey toog tey toroxlul yàlla subhanahu wa taala ndax ak kawe ginnaaw ab coono lay ñëw waxoon naa ko lu bari njëkk bayit yi loolu mi ngi ci xatu fanweer ak ñaar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 alayhi bi ali wa sahbihi wa ak i ya doon gàddaay ak ñi leen doon dimbule te nekkoon madina maa ngi lay dénk te yaakaar sunu boroom nangul ma yow murit bi yow sama xarit maa ngi lay ñaanal waxtu wu nekk sunu boroom di la xëcc jëmale la ci ab buntam del topp ndigal yi tey bàyyi tere yi kon doo ko boo dee wut ak njub ak ragal yàlla subhanahu wa danga da nga tedd da nga bul sako sa aajo ci kudul yàlla subhanahu wa bu ragal lor ci kudul moom bul gestu mbindeef yi ndax mënuñoo jariñ mënuñoo lor del gestu ndigali yàlla yi subhanahu wa taala ak i tereem ak tey sori képp ku réer del sori képp kuy moy yàlla subhanahu wa taala bul toog ak kudul boroom xam-xam buy jëfe te du jàdd ndax képp koy toogal ci moom ngay roy boo dee toog ak kuy mooy yàlla subhanahu wa taala du mën a ñàkk ngay mooy yàlla subhanahu wa taala boo dee toog ak boroom xam-xam buy jëfe faw ngay dolli ko ci moom yow sama xarit maa ngi lay dénk ngay taqoog sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama bul ci yokk dara bul ci wàññi dara lépp lu baax mi ngi ci topp sunna si yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbi wa sallama lépp luy ay may mi ngi ci ñàkk koo topp lépp luy ay mi ngi ci ñàkk koo topp lii ma la andil boo ko jëfee danga aw ca yoonu nit ñu baax na néew na waaye boo ko jëfandikoo mu yéwénal say mbir bu dul ko nag samay soxla yu bari ak xatuk sama xol danaa ko def lu gën a bari fii fi laa ko binde muy ak laabiir gu jëm ci yow jëm ci yow sama xarit wasalaam min ci xatu diwaanu min ci xatu fanweer ak ñeent ci diwaanu ilhaamul wadoot ba tey ñu leeralaat comme ni ko sëñ Alaaji leerala lim ni ngir xaqi ki ma leen jamale ba tey man maa ci daraja rek daraja maa ngi koy ñaan ci daraja yonente bi wala ni ak màggam toll maa ngi ñaane suñu borom rus defale ma noonu rek noonu lañ déggee bi xaq ki xaqi ki ma leen jëmale géemu waxoon ci ginnaaw wallahu alam sëriñ bi xaala lahoo laahu maxtaar lahoo bi mu jullee ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi moom mi sunu boroom doon wax jubal ni ma la ko digale ak képp ku ànd ak yow lii la ca teg sunu boroom yàlla na nga def ci daraja yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi sama lépp jub ni nga ko bëgge gërëme ko noona yow mi ma defal la wéy ci man njëkk atum ren doon lu ma taxañal sori waayub képp bépp dox ak sorig maqaama yépp ci daraja yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi maa ngi lay ñaan nga def bayit yi nga xam ni maa ko jëmale ci ñenn ñu aju ci man mu nekk am njàngale mu jóge ci man jëm ci kudul man te am njàng ci kudul man amin ya alamin jàpp leen dénkaan boo xam ni day sorel yeddaanga di muri di leeral lu nëbbu te ànd ak mucc bokk na ci li war ku nekk mu koy sàkku mucc ci ay noonam ba duñu ko lor aku njub ak wér ci mbooleem tawat yi ak ubbiku xol képp kuy sàkku yooyu nag nay sàmmonteeg way yi kon dana am la mu bëgg ak yeneen ci may yu mag yi maa ngi lay digal ngay ànd ak sunu boroom ci ay teggin ci zahir ak batin am na ñaar yu mag yoo xam ni boo leen xamee di leen jëfandikoo da danañ la dimbale ci loolu te mooy xam màggug sunu boroom ak xam ni bakkan lu bon rekk lay digle ngir ak suufeem saa demee moom bakkan ba am xayibam ba ay xayibam jeex ci topp yàlla subhanahu wa taala kon am na dolliku gu mag saa su demee moom bakkan ba ay xayibam jeex ci topp yàlla subhanahu wa taala kon am na ak dolliku gu mag bu boobaa santal yàlla subhanahu wa taala ci xéewal yooyee te bëgg ca ngir li la ngir li ko yàlla subhanahu wa taala jox te jaarewul ci kenn moo la ko jox ngir ak baaxam waaye yoyoo ndax bari ku bëgg xéewal yooyu ñu jafe ko lool te yow gis na ni ñu la jàppande del ami teggin ci ñoom tey rafetal tey sellal dee leen soril gàkk yi tey nangu sag ñàkk sag ñàkka yeyoo xéewal yi ngir sag gàttañlu ci ñoom tey moytu neen yi boo defee nii say jaamu yàlla subhanahu wa danañ kawe jaamuy kaneen ku ni yow boo amee xéewal gu ni ak wér ak wërsëg woo xam ni àndul ak di wër da nga ci bég mbégum sant ngir xam ni ci yàlla subhanahu wa taala la bàyyi ko te koy jëmale ci ag jaamu yàlla subhanahu wa taala ak dimbali ko loolu moo ciy teggin te koy bañ a jëmale ci ak mooy loolu mooy weddi njekk ndax lii nga am bari na lool ñu ko amul am nañu tawat bëgg wér am nañu ñàkk bëgg a am sunu boroom bi may andi li ma bëgg ci lu dul ay balaa wala ay noon wala ak wóoradi wala ay fitna wala tawat wala lor bu fekkee dalaa nattoo ak ñakk wala tawat dee ko muñ te koy gërëm loolu moo cay teggiin kon da nga am ngërëmam bul jàmbat kenn wala ngay feeñal sag aajowoo kudul yàlla subhanahu wa taala foo toll itam del sant ndax mënoon naa doon rekk gu te doonu ko del sant ngir awale gi awale fi muy awale ay xaritam ak soppeem ndax natt yi ñooy yoonu mucc te ñooy dindi xayibi ak yeddaanga tuyaaba ju ëndut ak xisaab ginnaaw ay nattu lay ñëw ginnaaw musiba yi la tuyaaba yi di ñëw la tuyaaba yi di ñëw ca ña ko doon muñ su ko defee ka muñu toon ami jàjji bu fekkee sunu borom yaatal na la yokk sa wërsëg de rafetal say teggiin tey dundalee ci ak diggu doomu dee ci ñaan dindil nit ñi seeni lor tey ñaan jàmmi adduna ak alaxira tey musli ci gàcce ak adduna ak alaxira tey sabablu ca lañu la tànnal loolu mooy teggiin loolu mooy teggiin te moo mel ni faju boo tawatee tey sant yàlla subhanahu wa taala ci dëgëral gi mu la dëgëral ak dalal gi mu la dalal te moo digle loolu maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala ci teqalikoo gi ma teqalikoog balaa bu njëkk maa ngi sàkku mu nangul ma ci barke bi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi maa ngi koy sant di ko gërëm tey julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi moom mi nga xam ni ci barkeem lama ma dàqale ñi may bañ bañu ñu jëm faneen fudul ci man ak lañu ma tànnal fàww taqoo di ma bégal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 saxal ci dëgg ak laabiir ak fàttaliku dee boo ragalee gàccey ëllëg loolu mi ngi ci xatu fanweer ak juróom-ñaar ci diiwaanu ilhamul wadud wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo maxtaar lahoo nee na jàpp yi ñuy wax ci lislaam mat nañu fukk ak ñeent mooy njàpp bu fekkee da jàppal julli farata wala naafile man nga cee julli def ca leneen lu la neex ci ngëneel naka noonu boo jàppalee jullit baawu naan wala ngir laal ab kaamil wala julleem néew wala kori ak tabaski wala julleem muruk weer wala jant yii yépp loo ci jàppal man nga koo julli boo noppee teg ca leneen loo xam ni boo koy def faawu nga jàpp bu fekkee da ngaa jàpp ngir siyaara ak waliyu wala ngir dugg ci biir jàkka wala ngir jàng alxuraan ci lu dul laalub kaamil wala ngir seral saw yaram wala ngir seetal ko wala ngir jàngale xam-xam wala ngir dem ci kilifa doo ci mën a teg loo xam ni mënee su defte def te jàppoo mel ni naafile wala laalub kaamil loolu mi ngi ci xatu fanweer ak juróom-ñaar ci diwaanu ilhaamul wadud wallahu alam sëriñ bi xaada lahoo allahu maxtaara bi mu musloo ci saytaane julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa na man mii di sàkku yàlla subhanahu wa taala aku yonanteem sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama te yaakaar ci moom ngërëm aku nangu may jëmale lii ci sama mbokk mu laa biir mii tudd Ibrahima yal na nu sunu boroom yërëm maa ngi lii ma lay dénk jàpp ko ndax amul lu ko féete kaw yow mi wut ngëneel lépp loo xam ni sunu borom da koo digle dee ko def lépp lu muy tere dee ko daw del ami teggin ci sa boroom ak mindeefam del jëflanteeg sunu boroom ci màggal ko te yërëm ay mindeefam di leen teral képp koo xam ni sunu borom moo ko màggal dee ko màggal boo dajeeg moom ndax màggal boroom xam-xam yi mi ngi mel ni màggal sunu boroom képp koo xam ni sunu boroom moo ko jay del ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jile ko ci lépp lu koy texeedil ndax sunu boroom li na yërmande lool te mën naa jéggal te lewet na te baax na yërmande moo gën a yaatu bàkkaar ak njéggalam moo gën a yaatu gën a yëkkatiku gépp njéggal del rafet njottu ci mboole mbindeef yi kon danga nga màgg mbir fasun boroom mbooleem say hitte jëmee ko ci topp sunna su yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama lepp loy def de ko deppale ak sunna su yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ndax yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy buntu mucc ak njub te mom rek lan wara top ma ngi ñaan sunu borom mu doli ko tedd nga ak guwolu mo ke ñoñam ak sahabaam li fi ak am mourid mi ngi def ab serignam muy kii dox diggam ak gàllankoor yi ba mën a tàbbi ajjana subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu ba tey mi ngi ci xatu fanweer ak juróom ñeent ci diiwaanu ilhaamul wadud wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo laaw maxtaara lahoo dénkaane bi taysirul xaatir fi jawaabi abdil xaadir la ko tudde jàpp ne lag sunu boroom mi jéggale ci tontu Abdul Xaadir fii la tàmbalee maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala mi digal képp ku réer muy laaj ko xam tey julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak i ñoñam ak sahabaam li kuy laaj mi ngi jariñu ca lañ koy tontu ginnaaw loolu yow murit bi nanga xam ni ku dul yàlla subhanahu wa du jariñ kenn kenn mënta jariñu wala mu kudul moom ci adduna ak alaxira ndax moo bind lépp moom lépp kon deel sàkku nga neelam bul sukkandikoo benn jaam ngir ragal wala looy xemeem képp kuy sukkandikoo jaami yàlla sukkandikuwul ndax ku dul yàlla subhanahu wa dana xalku kon deel sukkandikoo yàlla subhanahu wa taala boo dee ragal wala ngay yaakaar ku dul moom danga dese tey fo jàppal yàlla subhanahu wa taala def ko ab àndandoo te bàyyi mindee fii ci ak wet sunu boroom du faddu teewe na lépp du nelaw du xalku te xam na lépp du lottu du wuute ab dig du sàggan du fàtte kenn ci mindee fi te kenn la wuuteeg mindee fam yi kon deel sàkku ngërëmam tey taqoo ragal ko te koy bañ a mooy maa ngi lay xamal ni ak texe ci ragal yàlla subhanahu wa taala lay mën a amee ndax ragal yàlla subhanahu wa taala mooy buntu wépp yiw tey tëj wépp ay def ko muy sab yóbbal fii ci àdduna ba foofee nu jëm kon doo te da jub bu sàkku xam-xam wala lenn lu mu mandu doon ci lu dul ragal yàlla subhanahu wa taala lépp lu la yàlla subhanahu wa taala jox te àndul ragal yàlla supano wa taala ak njay la dawal te xam ni aw tiis la akum nattu bu lay xalak waaye du ak dolliku maa ngi lay xamal ni ak ubbiku ak ay leer akuk dëddu ak xàmmee ak i mboot ci ragal yàlla subhanahu wa taala la ñu leen di ame akuk sàmmonte waaye deesu leen amee ci yeexe lu baax aku xemmeem gu bari del néewal sag lekk ak say nelaw ak say wax aku xer ci àdduna yii boo leen néewalee danga am li nga bëgg lépp ak njariñ yépp mësunoo gis benn jaamukat boo xam ni jariñu na ci lu dul taqoo yi ma wax dee néewal say nelaw tey dudd tudd yàlla subhanahu wa taala tey noppi del nëbb say jëf yu baax ni ngay nëbbe say ñaawteef maa ngi lay xamal ni bari wax bokk na ci li gën a ñaaw ci gàkk yi maa ngi lay xamal ni bari wax bokk na ci li gën a ñaaw ci gàkk yi naka noonu ay nelaw ak bari lekk aku xër ci àdduna andi ndaa ko lu bari ci ay way ak wesar andi naa ko lu bari ci ay way ak wesar del taqoo alquran ak sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama li feeg yaa ngi am xel maa ngi sant yàlla subhanahu wa ci jàppundil gii tey julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ak ñoñam ak i sahabaam li kuy topp tey sellal mi ngi tàbbi ajjana subhana rabbika rabbil hissati ama yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لول مين كي خاتو نين فوك اك بن سي ديوانو الهام الودود والله اعلم سيرين بي خادله الله مختار له نين لي ميغي تودو طريق الفوز ومحو الحب في جواب اخينا محمد جوب يونو تخي اك بكار كي تونتو سونو محمد جوب maa ngi sant boroom bi def mbirum diine muy ngën gi lu ñuy laaj tey julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa moom min war a topp ci jamono ju nekk moom ak i ñoñam ak saabaam li fekk kuy laaj mi ngi jariñu ca lañu koy tontu ginnaaw loolu muhammad boobu gee ak texe ci adduna ak alaxira da ngay ragal yàlla sa boroom subhanahu wa tey def limu la digal tey daw li lay tere tey sax ci sunna yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tey moytu bidaayi ak lépp lu lënt tey taqoo ak sàmmonte bu roy boroom xam-xam bu jëfewul la mu xam ndax képp koo xam ni ragalul yàlla subhanahu wa taala du boroom xam te xam doonte jeexal na téerey bul xaritoog ku dul ku ragal yàlla subhanahu wa bul ragal bul xaritoog kudul ku ragal yàlla subhanahu wa taala di la jëmale ci yàlla subhanahu wa taala ndax ab xarit day roy kamuy xaritool moo tax bul ànd ak kudul ku lay jariñ sunu boroom wax na ci biir téereem bi ni bu leen jëm ci ñiy tooñ ba tey nee na ci téereem bi jullit dëgg du xaritoog ab yéefar moo tax ma di la digal ngay xaritoog kuy farlu bul geestu mindeefi ndax mindeefi mënuñoo jariñ mënuñoo lor bul merloo yàlla subhanahu wa ngir ragal mindeefam yi képp kuy gërëmloo mindeef fi ci luy merloo yàlla subhanahu wa taala daa réer ndax ngërëmul mindeef yi du la jariñ dara boo merloo yàlla subhanahu wa loo xam ni ngërëmul yàlla subhanahu wa nekk na ca bu ca ragal yeddaa ngay nit ñi del tuub tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala ànd tuub balaa sunu borooma mer del réccu lépp loo mas a def ci ab safaan te bàyyi lépp lu bon te dabaatal lépp loo mën a dabaatal tey baril astaghfirullah alazim yii ma wax ñooy waral ak ragal yàlla subhanahu wa taala ci saahir ak baatin wallahi boo bëggee jëfe li ma la digal bàyyi li tere da ngay jëfandikoo yooyu yi ma wax léegi tax sax li feeg yaa ngi dund ndax ñooy yoonu njub ci képp koo xam ni danga ngaa soobu ba tey seeni safaan ñoo yoolu del julli waxtu yu juróom tey naafile tey woor tey joxe asaka ginnaaw boo leen xamee na nga ko war a xame mbooleem li yonante bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi andi dee ko def kon da nga am xaajo faju bul xool lenn loo warta xool bul diglu lenn loo warta dégg mbooleem say cër bu ci def lenn loo warta def foofi la tontu lu yam maa ngi lay ñaanal yow mohammed lii nga di ko jëfe boo bëggee ak njub boo ko defee boo ko dee jëfe faw da nga doon boroom diine alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala xaatimi nabiin mohammad wa alihi wa sahbihi wa man tabihahum ila yowmi ddin wassalaam lool mi ngi ci xatu ñeent fukk ak ñeent ci diwaanu ilhamul wadud wallahu alam sëriñ bi xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na képp koo xam ni alxuraan wettaliwu ko saytaane moo koy wettali képp ku ray fiq ak hadis yi yonente bi sallallahu bi alihi wa sahbi dundal na biddaa képp ku bàyyi tasawuf jubul loolu mi ci xatu ñeent fukk ak ñeent ci diwaanu ilhamul wadud wallahu alam sëriñ bi xaada la wallahu maxtaara la hoo nee na lii mi ngi tudd tajribul xalam wal midaat li wa ci man jaada bil widaat nattu xalima ga ak daa ngir yàlla mi ma may ak sopp wallahu alam képp ku bëgg yiwu adduna ak alaxira ci ludul jenn lor na nga jëfandikoo lii may bëgg a andi del sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewal yi te bul ci topp sa bakkan del wakiirlu ci yàlla subhanahu wa taala tey bañ a taayeel del ragal yàlla subhanahu wa taala ci lépp tey muñ ci jaamu yàlla yi tey sikkar tey sant del taqoo téerab yàlla bi subhanahu wa taala ak sunna si bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi tey moytu biddaa yi ak bànneexi tey màggal niti yàlla yi tey rafet njott ci mboolem nit tey saxal wirdi tey moytu yolomal yi ak tawil yu doyat yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ngi ci xatu ñeen fukk ak ñeent ba tey ci diwaanu ilhamul wadud wallahu aalam bi xaadalahoo allahu maxtaaralahoo nee na képp koo xam ni da ngaa bëgg a jige yàlla subhanahu wa taala da ngay wut ab sëriñ tey jàng alquran topp ndigalul sëriñ bu xam yàlla subhanahu wa taala mooy taxa xam yàlla subhanahu wa taala jàng alxuraan dana jariñ lool ki koy def di ko yóbbu ajjana xam yàlla yi nag dañuy des ba faw di ànd nag ñi leen am ndax yàlla subhanahu wa moo gën a des lépp di leen sax ci topp ndigali yàlla yi tey topp ndigali sëriñ bi àgg ci yàlla subhanahu wa lool mi ngi ci xatu ñeen fukk ak juróom ci diwaanu ilhaamul wadud wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo allahu maxtaara lahoo bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na lii mi ngi tudd tajribun wa taqrib ilal mujibil xarib ak tontu akuk jigéel yàlla subhanahu wa taala muy wuyu ku ko woo te jige lool wallahu aalam jublul àjjana yàlla subhanahu wa taala mu tedd mii te tabe te mën a terale mën a ganale ci topp ay ndigalam yi lay dalal tey teet ay tereem kon danga am ak dëgëral del tuub bàkkaar yi te lépp lu lay jëmale ci ak moy wala kuy moy bu ko bëgg barab yi tuub mooy xol ak làmmiñ aku yaram boo leen setalee ami may yu rafet da ngay réccu ci sab xol tey jublu yàlla subhanahu wa taala tey baril astaghfirullah al asim tey bàyyi ci saw yaram lépp loo xam ni ak mooy la tuub gu mel nii day far bakkaar yépp tuub gu mel nii day far bàkkaar yépp su ko defee nga daa di dëkkal ku ci nekk ci ñoom fa mu war a dëkk te koy jox la muy dunde wéetal yàlla subhanahu wa mooy dëkkuwaayub xol ab dundam mooy yéene aw yiw dëkkuwaayub làmmiñ mooy tudd yàlla subhanahu wa taala ab dundam mooy wax aw yiw wallahi dëkkuwaayub yaram mooy def lu war ak lu ñu sopp ab dundam mooy lu dagan laabir gi sunu boom moo ko xamal moom mi ma jox alxuraan del jublu àjjana ci yi wax kon da kawe fa yàlla subhanahu wa xikmatun du tabbi ci xolub kuy bokkaale yàlla subhanahu wa taala wala muy yéene lu bon làmmiñ dara mënu koo yéwénal lu dul zikkar ak wax aw yiw aw yaram jëf ndigal yi moo koy yéwénal dee ko jafe tudd naa lépp dee ko jafe subhana rabbika rabbil xissati ama yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ci xatu ñeen fukk ak juróom ci diiwaanu ilhamul wadood sëriñ bi xaada la xoo laaw maxtaara la xoo bi mu musloo ci saytaane ci ni mu ko baaxoo musloo julli na ci yonante bi salallahu taala alay bi ali wasabi wasallama xam le ci biir julli gi ni moom moo dox diggam ak boroomam ñaan bayit lii muy bëgg a dénkaane doon lu sell ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala mi amul fu mu yam te gindi ku ko neex te teral ku ko neex te tedd lool te doon itam luy jariñ képp ku aju ci moom ci adduna ak alaxira ci lu dul benn gàkk wala benn nax-nax ci diggam ak kenn ba mu defeeloo nag la door a wax lii maa ngi leen di dénk yéen ñi aju ci man ngir jëmmi yàlla subhanahu wa ngeen di bàyyi lépp lu xaraam ak lu ñu sib ak lu lënt ku leen xàmmee na nga leen bàyyi ku leen xàmmeewul nanga nga ak ku leen xam dee leen taqoog lu war ak lu ñu sopp ak lu dagan kon da ngeen jige yàlla subhanahu wa taala dee leen jàng tey jëfe la ngeen xam dee leen ami teggin ci seen boroom ak seeni moroom ci lu feeñ ak lu nëbb yéen gone yi dee leen mag ñi yéen mag ñi dee leen yërëm gone yi dee leen yaak yàlla subhanahu wa ci topp ndigalam yi dee leen ragal yàlla subhanahu wa ci bàyyi tere tey tuub ndax tuub moo yéwénal jëf yi dee leen jàng alxuraan lu ngeen man ci guddi ak bëccëg yi dee leen taxaw julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi dee leen bëgg aw yiw ci mbooleem jullit yi ndax sunu boroom bëggul aw ay ci ay mindeefam dee leen lebal yàlla subhanahu wa taala lépp lu ngeen def dana leen ko fay loolu maa leen ko dénk tey julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama loolu mi ngi ci xatu ñeen fukk ak ñett ci diwaanu ilhamul wadud wallahu aalam sëriñ bi xaadalowoo law maxtaar lowoo bi mu musloo ci seytaane julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama xam la ci biir julli gëni way wii da ko way ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala ak dundal sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñaan na ba tey sunu boroom mu yar te yéege ci bayt yi képp ku mu bëgg mu yaru wala mu yéeg ci kun fa yakkoon door a wax lii ya bi deel néewal ak lekk ak nelaw bul jaxasoo nit ñi jaxasoo bu amul njariñ deel moytu jëw boo bëggee àgg del jikkar foo toll bërig lekk day waral doo am neexiitu jaamu yàlla subhanahu wa taala bëri nelaw day waral doo am barke ab dundu bërib jaxasoog nit ñi day waral ay lor ëllëg di waral doo am aw lay wulay jariñ fa yàlla subhanahu wa taala ab jaww day waral doo génnaale ak wéetal yàlla subhanahu wa taala ci adduna dama bëgg wax ni ñeent day xañe ñeent bërig lekk day xañe neexitu jaamu yàlla subhanahu wa taala nelaw day xañe barkeg dund bërib jaxasoo day waral doo am aw lay fa yàlla subhanahu wa taala jëw day waral doo génnaale adduna tawhid ju wér ibrahimu mu addaham radiallahu taala anhu nee na na maag lu man ñetti téeméeri wàllu yu liggéeyal leen waaye ku ci nekk ñeent yii la may digal kon na ngeen leen wattu loolu ba tey mi ci xatu ñeent fukk ak juróom ñeent ci diwaanu ilhamul wadud wallahu aalam sëriñ bi xaadalowoo law maxtarlowoo nee nan lu waaye def lu mu tuuti tuuti dana gis ak payam ëllëg moo xam lu baax la wala safaan lépp lu waaye def sunu boroom dana ko ko fay te loolee nekk fa yàlla subhanahu wa day des te loolee nekk fa yàlla subhanahu wa taala day des loolu mi ngi ci xatu ñeent fukk ak juróom-ñeent ci diwaanu ilhamul wadud wallahu alam sëriñ bi xaadaloo wallahu maxtaarloo mi ngi julli ci yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbihi wa sallama moom mi ko digal mu def ay bayit ci kenn ci ay ñoñam te mooy abul hasan jazali radiallahu taala anhu ni mi defoon woon ay bayit di ci tagg a cheikhu abdul xaadir jili ak cheikh ahmadu tijaani radiallahu taala anhuma maa ngi ñaanal abu hasan ngërëmul yàlla subhanahu wa taala moom mi mel ni ku nekk ci buntub sunu boroom te doon ko gën te kawe fa yàlla subhanahu wa taala kenn la koo xam ni kenn gisul ku mel ni moom ci ay wirdam am naa ci tuyaaba yu bari yonente bi sax sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa na ma ci bàyyi gima ma bàyyi ay sikkaram ngir tagg ko ndax wirdam daa mel ni sama mbubb yal na ko yàlla gërëm moom mi ma ginni ci aw wirdam ba ma kawe fa yonante ba sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi soppe yëpp mooy ba ma kawe soppe yëpp wirdam woowu bu ma toogee di ko wirdu kuréeli yàlla yi subhanahu wa taala dañuy ñëw di ma